kàddu yi daanaka dugg day ne kàddu yoo xam tamit kàddu yu naqar la ndax mën naa laa wax ne la kàddu yu naqar yoo xam tey ji daal wàcc na ci Sénégal gi nga xam ne mooy euh, askanu Sénégal gépp rek ko koy masaw ndax koo xam ne daal mën naa laa wax ni da doon ba lii lépp fekk ko tey jii nag yaakaar naa képp koo xam tamit bëgg nga lu baax wala tey jii nii ànd nga ci ñi bëgg lu baax tamit yaakaar naa lii war na laa métti muy suñ leader bi nga xam ne mooy usmaan Sonko. te tamit di leen wax ni leen xel yi askan wi lan bëggee dalal moo tax ñuy woo leen fii pour waxtaan ak yéen di leen xam ne lu dul lu dul doole moom yàllaa kopp ñëpp yàlla ëpp ñëpp doole tamit yàllaa man ñëpp ndax tey jii nii lii ñu ko da lii ñu ko teg nga xam ne ay tuuma la ñu teg ko ci ndoddam ba denc ko jàpp ni tamit du bokk ci élection 2024 yi tamit loolu ay nax lay nekk ndax élection 2024 yi moom ñaar rek ko ci mën a boole muy faatu wala mu ñàkk ci wala wala tey jii nii dundatu rek faatu rek ko ci mën a mën a tee bokk waaye moom bu soobee yàlla moom feeg mi ngi yor room gii moom Ousmane Sonko dana bokk ci élection 2024 yi. fi ñu ko teg mooy teg dañ kaa teg ci foo xam ne fu leer la fi ñu teg Ousmane Sonko ba jàpp ko mooy leeru ciy tappale ak ci loo xam tamit ay ruumanaat ba ëpp doole nit ki rek jaay ko doole tëj ko fii nag dañ koy teg ci lu leer loo xam tey jii nii kii day jihaat jaar ci yoon woo xam yoonu métti la yaa ngi gis ban koy jàpp daa woor ba dog ñu door koy jàpp yóbbu ko yaa ngi dégg information yi fa mu nekkan lekkul naanut te loolu yëpp ci xeet jihaat bis bi nu ko doon jàpp gis nga firaw na ci la labe woon tey ñiti baax yooyu yëpp ci leen amee indépendance te ba mu ko jàppee ci la taw bi commencé soob yaa ngi nii tey jii bi ah, mandat dépôt bi wàccee am na dëkk yoo xam sax dañ doon taw kon loolu da xam ne loolu si ñu baax la si yoo xam ne am yaakaar te si ñoo xam da ngay xam ne kii ñu jàpp nit nit koo xam ne yàlla ànd ak moom la. communication bi ni xool moo gën lépp mu yàlla la àndal yor suñu kurus ak suñu alxuraanul karim ji ànd ak yàlla kenn nag ñi nga xam tey jii ñoom ñoo ko jàpp moo ànd ñoo yàlla seen doolay bopp la wante yàllaa man lépp ndax. ke ko ko jàppalu ak ñi ko jàpp ñëpp yàlla yàlla leen fi teg tey jii ne yàlla jooju nag moo nekk fépp foofu rek lañ ko tege teguñu ko feneen de. xam nga dañ ni vidéo buñ la vidéo sax am nga droit porter plainte ki la vidéo ak foto yëpp léegi nag moom am na droit tamit lim def am na ci droit xaj na kay jaay doole moo dem ba yàlla def ko tey jii nii ñu ñu tëj ko ci kasa bi rek dan ngaa jaay doole rek wante nag di leen wax ni tamit du yomb de barke Seexul Xadim du yomb te dana génn ci kaso bi de. barke Seexul Xaddim di yomb gi mooy wóotewun ay ay sànnanteeg ay nangam nangam dañ koy teg ci mbiri baatin te ci kàttanu yàlla maa la ko wax fii tey la lan tey la altine mooy jour bi ñu ko jàppe la 31 maa la ko wax barke alxuraan karim dana génn ci kaso bi te dana bokk 2024 dee kese moo koy tee bañ a bokk 2024. nee naa la yàlla rek lañ ko teg. billaahi wallaahi yàlla xam nga nit ki bu dee jiital xelum boppam kii nag di jiital xel moo xam ci yàlla la koy baasew bokkuñu kii ci dooley boppam la kii nag yàlla la yaakaar dooleem waaw loolu bokkuñu baatin ak batineen mun ñoo ànd hmm. wax fa naa ne moom daanaka day yomb ndax citoyen citoyen rek sañ naa génn wax tamit li ma naqari ci réew mi ak li ma neex ci réew mi di bu ma gisee lu ma neex ci réew mi nii laay defaat toogaat wax léeg lii neex na bu ma gisee loo na ma ci réew mi na ci réew kenn moom réew mi de jiital moo fi nekk rek de du dëgg kon nag bu ma amee lu ma naqari damay génn toog wax ne léegi lii moo ma naqari ci réew mi donte tamit ba ma bu ma koy wax ñi ñi koy jiite mun ñoo saafaru waan dinaa ko naqarlu naqarlu bi nag du nekk loo xam damay influencer kenn wala may génn di sànni xeer wala ma naa wante lii daal maa ko moom moom sama xel mii moom sama kurus gee yeneen ak yeneen daal. lenn rek laa la ci wax muy Pastef moom am na ñoo xam ne ay ñoo xam ci Pastef lañ bokk mun ñoo mucc. ñoom faaw moom dañuy dem kaso moom mën ñoo mucc loolu moom mën ñoo mucc li kenn ki lii ëpp solo ba ëpp solo muy leader bi rek moom moo ëpp solo lépp moom moom sax moo war a gën a sant yàlla ndax saa buñ jàppee leader bi teg ci ñoo xam ne ci ginnaaw lan bokk day mel ne dañuy gën a may leader bi doole ndax saa buñ jàppee Ousmane Sonko teg ci keneen koo xam ne tamit si si Ousmane Sonko la boo muy day mel ni tànk Ousmane Sonko moo ngi ci biti wante bu doon moom kese lañ jàpp jëmmi tànk yi yëpp moo ngi ci biir kaso bi an saa buñ ko jàppee jàpp keneen rek kon mel na ni tànk Ousmane Sonko benn tànk mu ngi ci biti buñ jàppaatee keneen tamit noonu lay def te man fii laa la ko waxee bu soobee yàlla da danañ ko bàyyi dem ñu tas parti bi ak ñàkk tas parti bi Ousmane Sonko day dem élection 2024 loolu <laughs> Thierno <laughs> ba yàggatul dara mbir mi day changé day gën a neex wallaay day changé day gën a neex ndax mbir mi da ngay jàpp ni ak jekko moom xeex la rek jekkonte la rek ndax jamono bi la jàll gis nga ni ni ko Ousmane Sonko jekkoo ba ay mbiram yëpp yaa ngi gis ñu war a jiital sax da ci am problème bis bu set ñu dem assemblée xool nun daf bu bu demee assemblée yaa ngi xeex moo fay mujjam wala ay coow moo fay mujjam ba la mu bëgg du sotti. tey jii nag yàlla daa def mu jekk ko rek waaye na xoolal jekk ba xam dina ko mujjëm déet réew mi moom jàmm moo ci am moo ci njëkk te réew mi réewum diine la réew mu Sëñ Tuubaa tëdd Alaaji Maalik te Baay Ñas te keneen ak keneen tëdd fa kenn mënu kaa taal li ci ëpp solo boobu solo booy ji xeex ka sànni yëpp xaj na seen tolluwaay moo dem fa ak seen naqar wante ñi yor seeni i kurus yor seen alxuraanu karim ji ñoo ëpp fuuf te ñoo ëpp doole booy di sànni ak xeex. ci leen fas yéene ci leen fas yéene xeex ci final bii lii mooy final bi Macky Sall am dëgg ba faaw wala Sonko am dëgg ba faaw bu soobee yàlla dana am de dee rek kay tee ngóor si bañ a bokk ci élection yi waaye bu déew dana bokk ci élection yi de xam nga xeex moom moo jërta jërta jërta wut waaw jërta jërta sàkk wante boo ko amee respecté ko waaw lool foofu foofu la mbir mi tool rek fi nii danoo toll ci mbir moo xam ne ku war a wax war ngaa wax ku te lu na lu daa daay gu nar a taal ab dëkk nag bala moo taal commencé taal ay kër rek commencé frais na ko fay ko daal. déedéet déedéet tool kilifa yi war na noo wax ñaan jaam ñu woo ñoom ñaan ñëpp pour ñu xool ñi jaam amee si réew mi ndax loolu moom mooy njëkk di coow lii Thierno dafa yëmul ci kenn ku ne mën na cee gis boppam ku ne lu ne mën la cee dal mën ngaa liggéey ba wàcc dajeek ñoom. lu ne mën a cee am moo tax ñun ñëpp jàmm lañ ciy woote jàmm rek lañ ciy woote te Sénégal bu soobee yàlla dana am jàmm ndax dëkk bu Sëñ Tuubaa tëddëg réew mu Sëñ Tuubaa tëddëg bàyyi ñes ak ñeneen ak ñeneen kon rus nañ muy tàkk wala leneen ak leen di jàmm day mel ni mag ñi boobaa mooy loolu Ousmane Sonko daal li li ni wax daal yooyu yëpp amul la mu wax ak la kii yëpp amul sens ndax bëgg-bëggam la wax rek suñ bëgg-bëgg la ni wax rek li ci solo baam solo daal muy nit ñi nan takku xam ne tamit ab jullit lañ jàpp ab taalibe lañ jàpp rek koo xam tamit da doon jihaat ban jàpp ko laa mën a wax ndax damaa xam ne tey jii nii kii mbir mii nii bu doon jëmmi boppam ak jëpp jëmmi bopp mën naa bàyyi bi yaa kenn yéen a gën a xam ne kaso neexul yéen a gën a xam ne tamit jangti jangte doomu aadama mu lay neex ak mu lay naqari da ngay ñëw force neexul foo bëgg a dem ñu lay lijjanti boo génnee ñoo xam ne génn nga sa njaboot mënoon laa misi ak ñoom mënatoo dem fenn mënatoo dem xew mënatoo seet sa benn mbokk nekk ci yooyu yëpp xam nga ni loolu neexul léegi nag bu doon tey jii coonay boppam wala bëgg-bëgg boppam la engagement yëpp du ko du ko ci jël yaa ngi gis ba depuis booba léegi coono yi ko fi dal jàpp nañ ko fi bàyyi garda bi lu ne def nañ ko fi yaa ngi koy gis fu mu war a jaar ñu doo fa jaar leneen bu waree wuy ju ñu ne ko fii doo fa jaar fii ngay jaar naa nga ma naam kon dangay ngay xam ne kii xeex bi mu xeex xeexalut boppam te xeex bi da ngay dégg ci biir bakkan mu ne bu jaree bakkanam bi wadd ku dem ba jël engagement ndax xam ne génn na ci boppam askan wi lay lay waxal du dëgg yooyu moom daanaka daanaka comme bu ko dee wax xam nga waxu ko ngir violence wala wala ngir lenn nag da koy wax ngir tey jii nii ñun ñëpp ñoo ànd benn am benn naqar naqar woowu ñuy ànd nag di ko kii moom lay woo nit ñi waaw ñu ñu jooyandoo naqar woowu wante woowu ko ngir fitna Sonko du nitu fitna bu doon nitu fitna ak fitna ba léegi kon mbir mi du agsi ba fii wala mu demee neneen ak neneen. du dëgg waa ñun moom ñoo ngi nii rek ay taalibi Cheikhul Khadim ñi ni xam nañu ko baax daal. ci position bu nekk ak yëpp ñi ñu seetaan xam na waaye ci ëpp solo boobu solo mooy askan wi nan dalal seeni xel daal nan dalal seeni xel bu baax a baax nag jàpp gi mooy li gën ndax buñ ko jàppatan leneen mën naa am jàpp gi mooy li gën leneen li moom daanaka ceerdu day nekk loo xam ne suñ secret biir la ne jàpp gi daal moom mooy li gën buñ ko jàppatan leneen mën naa am. mandat dépôt bi xam nga kon mandat dépôt mooy dañ lay toog fee xaar la rek ba heure buñ la mënee àtte àtte la. kii ngeen di gis koo xam ne dañ koy mandat de bu pare gaaw gaaw bu kaa génne ci kaso bi. waaw pomiteer bu tàng nga lay nekk ci sénégalais rek. wante daal na sénégalais yi dara seen xel lii moom moom mënta ñàkk sax mënta ñàkk sax waaw mënta ñàkk wante tamit moo gën ci moom ndax defaat nit dina bëgg dara faaw am yu fi jiitu ba pare muy dara jooju bu ñëwee mën a nekk loo xam tamit luy gën na ci moom am loo xam da koy fanqal daan moo gën ci moom wax dëgg yàlla bu soobee yàlla dana ci génn. <laughs> du malax benn dalawaan bu soobee yàlla ak yonent bi Sonko dina génn ci kaso bi dee moo ko tee dee moo ko léegi xanaa wax la dee moo ko tee ba ñu bokk ci élection 2024 yi <laughs> waaw yaa ngi fi maa ngi fi <laughs> ba bis ba incha allah. waa ñoo ngi gërëm ñëpp di wàcce suñu kàddu di wax tamit xale yi xañ na danoo am naqar di ko def rek waa ndax xale yi tamit liggéey bi ak Sénégal tey jii ni mu mel ni kenn ñaanu yàlla di yàq loo xam sam réew la. yaakaar naa am lu leen naqare amul leen lu ñu ko def ñu koy fajee noonu wante tamit ñoo ngi leen ci wax ni leen nan dellu ci kër ya dalal seen xel bu baax a baax te xam ne mbir yi ña ko war a lijjantee nga koy lijjante bu soobee yàlla dana génn foofu delluwaat ci këram di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ñaana suñ Muntaxa Basiir mu yàgg fi lool te di ñaana tarix yëpp tijaan xaarit laa ñese ñëpp di ñaan yàlla senegal jàmm am fi waaleykum salaam wa